waa papa foo nekk yow boobule ba ñëw ko didee. waa jën koy vocal nii. namm naa di tey dama war a seese. wax rek yow kon bàyyi ko ah damaa xam ne ni nga mer jongoma ba yàqu góor yu baax yi bëgg la am seen teraanga di la ko jox. nga ne tey kooku rek ngay topp. parce que moom laa bëgg papa laa bëgg doo bàyyi papa laa baax rek loolu la. wuy ma ma yi ngay wax ni yëpp sax wax ma ko. d'accord xam nga mën kaawate. jànk xanaa dem la laa gént. Mm. nga may jam paaka. paaka barki yàlla. <laughs> yow moom da gént rek. <laughs> looloo la dese gént ma ma lay jam paaka nag moo la moo tax damaa ne lii moom yëfi dof la gént dof yi moom jarul sax. mais sinon naka sa voyage. ça va. baax tane na rek. man sama sërëjëf moom ma fay indi. sërëjëf ah. eh, baby. salaamaaleykum. maaleykum salaam. si la ne. chéri. yaa ngi cool. oui ça va. Fatima. naka mu. naka mu. nekkoon. yi booy. ah yaa ma gën a xam mooy loolu. Hmm. naka mu ça va. ça merci kontaan naa si yéen trop. man jéem ko bëgg. Ah. yàlla dogal loolu kenn mës dafa. yaa ah, ngi yàlla gën a bëgg. Hmm. man daa xam ne naa bëgg. Hmm. mu ñëw def lu baax nga man rek. may daaru Dakar bu mu ñëw ñu tëj dëkk ko ba moo ko rumba. Hmm. loolu dina ma neex. yaa daw dafa da war a gaaw nag def dara nag man damaa yàkkamte anytime xew rek laa na may sant bii. amul benn problème yow kii dama koy tax lu neex. kon baax na. Mm-hmm. jànk man maa ngi ñëw waaye doo toog. nga mën ma dem bàyyi ma bàyyi leen. lenn da ngay farantu nga bëggee góor. loolu la. ci moom laa bëgg ok après naa la woo. ok bébé bisous. waaw bee. benn mun naa la de. bilaay maa raw. maa ngi cool maa ngi sant toog di la xaar. circulation yi rek yaa nga xam mooy loolu. xanaa mën a guddee loolu moom da nga ko tàmm à chaque fois may toog di la xaar di la xaar te su ma ko defee nga may. maa ngi jégalu. waaw hmm. lu may rêvé. daanaka hmm. loolu rek a nekk sama xel. damaa bëgg nga takk ma. Hmm. ma sëyal lu neex. joo la njaboot bu barke. xanaa yàkkamti moo ñu am ay seex. ah bien sûr. surtout seex jigéen nga xamante ne j'en rêve tellement. amul benn problème incha allah yoo xam nga ni yow man su ma la takkul kan lay takk. Ah, daal takk lu neex nga seel ma jaagat jaagat sama kër dëkk bi yëngu. ni nga xamee lii sedd sama xol nga ma koy wax yow loolu <laughs> nga war a def nag ba mm-hmm. parce que mm-hmm. xam nga nit ñi dañuy gis ñaar ñuy dem rek. dañu xam ne ñuy dund ñuy yàq xel te man yow laa bëgg man man ku ma bëgg rek nañu nañu bëgg la suñu diggante. Mm-hmm. Ah, kon tey fu ñu jëm. dama bëggoon dem Corniche dama bëgg naan ndoxu koko. Hmm. après suñ fa jógee ñu dem Mbanteya. li nga bëggee Mbanteya. <laughs> mais tey man maa am envie ñu génn promené wu. waaw d'accord am problème bon baax na. xam nga sama saak. yow mais yow eh mais sama sama pochette nii sama saak te sama carte ci la nekk xam nga policier yi dañuy ramasse Corniche rek. guddi gii bee doo bëgg ñu ñu la ma nekk xanaa yow yaa bëgg ma ma kon. bon yow bàyyi ma yow yëpp ba keroog rek fii lañ la ramassé. madame. yow. maa la gën a kontaan. Hmm. yoo xam nga loolu sax. ay bandi man damay bëgg chaque jour nga fii ñëw hmm. ma lay toppatoo hmm. ah. di ma tël di ma yóbbu toppatoo di defar ba mu baax di la toppatoo man loolu daf may neex daal hmm. kii moom dafa mën a woote Rose day woote rek moom daal moom dafa mën a yàq lees ah suñu toog suñu waxtaan neex mu bëgg ñu yàqal suñu lees ne xam naa nag dañoo waroon am fu ñu dem mais est duma ko woo sax ma wax ko ne ko dama génn. allo. oui ma copine naka mu. waa Fatima yow booy wër naa la ba son waa dama dama génn nag. ah pourtant man maa ngi sa buntu kër nii de. maa ngi si buntu kër gi. Ah, dama dem voyage bu ndaw rek. Fatima sooy sooy voyage doo tàggoo yow tamit. dëgg la kay man xam naa loolu mais dama dem voyage bu urgent rek. waa soo ñëwee woo ok waa si kanam. waaw bu fi fekk ma fa ko tuuti ah Rose moo ngi noonu ci loo ne. cousine di ma wax dara de. naa la. maa ngi raw naa la gis. maa ngi fi. waa doom yaa lan moo xew. yow gëj naa la gis de bàyyi nga ma de. si cousine temps yi dama xat mais bon. nga baadoo la nag. kenn loolu indi si koñ bi. wax loolu waay mooy sa pourtant maam moo la waroon ànd. ma woo ko ba son jotuma ko ma ni naa ñëw këram mais dama ñëw ba si bunt kër gi mu woo ma après mu ne ma moom dafa voyagé. Fatima. voyagé fan. waaw dafa voyagé loolu la ma wax de. xanaa léegi moom oto yi wala avion yi dañuy dem même pas deux minutes wala deux secondes. <laughs> Eh, kii la léegi laa ko gis ànd ak papa di dugg si gi. man man yaa ngi foofu sax pour ma fa nga jógee nii. man papa sa papa. yow papa dégg sa ne yow moom am nga problème ba est ce que du ut ay verre. papa dafa am seex. non dem séminaire fa. mais papa dafa ma séminaire la dem de. déggoo li ma la wax man dama la gis nii ma yaakaar ne sa sañ bu mag bi yow foofu nga génnee si ñoom. ah, ah. man maa leen gis yaa même pas cinq minutes. waaw baax na xolam. suba naa ñëw sa kër. nooy teg suba naa ñëw sa kër. ah sérieux waaw ça va. waaw ça va ah, suba naa ñëw sa kër dégg nga. Ah, ciao ciao ma sama tonton. na ko mooy sama ne. non nekkul li nga foog. papa nekkul li nga Fatima Fatima Fatima man góor sax laa mais ma Fatima yow ma meilleure amie yow je te considère comme une sœur Fatima ma yëkkati Fatima yaay ba. yaatoo na yaa war kat franchement mi yaa metti toujours naan bàyyi papa mi dafa ñàkk jom amul la njëriñ tey yaay papa. papa maa fi ñu jaar yëpp papa tout ce que j'ai fait ndax yow ma dégg yëpp ndax naa ma ba ba bala ma bala ma ni yow laa bëgg papa yaa ma fayal lii ak sama meilleure amie. taxaw ma expliqué la sama àq dal. Rose yal na bi yaa ma si dugal. parce que dama laa bëgg loolu moom. waaw soo ma bëggee léegi nag après léegi xaaral gisoo kii kii léegi yaa ma si dugal Fatima. ngir yàlla bul ma bàyyi. waaw dimbali ma naan doo bàyyi léegi xaaral ma dem xooli kër